Sénégal jàmm crédit mutuel fii ci Ndiassane ci kër maam Cheikh bu Mohamed Kunta di wax jërëjëfe maam Cheikh bu Mohamed Kunta e, soxna Aimé ni mu defee présentation bi léegi rek noonu la demee ndaxte ku ne xam na soxna Astafal Bambado mi nga xamante ne bii mooy waajuru Cheikhul Bekkaay ibnu Cheikhul Bekkaay mi fi jógee barki demb mook maam Aminta Fall Bambado mi nga xamante ni bii mooy waajuru maam alaaji maam bu Mamadou E ak na bu Fall Bambado mi nga xamante ne bii moo jur Kumba Kan soxna Kumba Kan mu jur MSAO mi ñoo bokk ndey ak baay kon mu am fii ci Ndiassane cër bu mag a mag a mag di kër maamam kon bu ko yàlla boolee ak Crédit Mutuel de Sénégal mu ànd ak yéen ñëw fii tàbbi si Ndiassane ngeen jiital ko. ñu di leen xamal ni fi ngeen jaar foofu mooy bunt bi tegu leen ci fenêtre yi jéggiwu leen da ngeen a jaar ci bunt bi ndax soxna si ngeen jiital am na cër bu mag a mag ci dëkk bi mu ngi nii toog nag ñi nga xamante ni bii ñoo leen dalal ñooy ahlul kunti yi yëpp ñu ngi nii toog njabootu maam Cheikh bu Mahamed Kunti yëpp a ngi toog e, ci ndigalu xalifatul am di tarixatul xaadiriya di cheikh bu ibnu cheikh Sidi Maxtaar mi nga xamante ni moom la yàlla teg tey ci kanamu askan wi ay rakkam ñi ngi ci biir jataay bi Cheikh Ahmad Bamba Kunta moom Cheikh Sidi Yahya Kunta xalifa bi nga xam moo toog avant moom ma nga ne la toog ànd ak ki nga xamante ni bii mooy Serigne xalifa Kunta di porte parole nga xamante ni kàddu askan wi yëpp moo ko ëmb yore ko te ñi ko jox mooy ay kilifaam. ni ko doy nga nu ci ngir bëgg goo xamante ni bii bëgg na ko maamoon Cheikh bu Mouhamed Kunta waaye dëggu na ko itamit te itamit xam-xamam mate na ko sëkk mu ngi ni toog ci seen wet ànd ak ki nga xamante ni bii mooy doomu xalifa bi di Cheikh Baye Bekaay Kunta ak alxaaji Mamadou Kunta mi nga xamante ni bii mooy coordonnateur nga xam lépp loo xamante ni bii eh, yàlla dogal na ñu di ko def ci kër gi rek wala ci gàmmoo geeg bépp mboolem lu ci jëm rek moom moo koy coordonné moom alaaji Mamadou Kunta mii ñu xamal crédit mutuel de Sénégal Sénégal si Ndiassane am na fu mu leen teg li waral loolu mooy li fi teew tey ci askanu Kunta ci doomi Kunta mosuma ko gis ñu teew fi teeru teeru kenn yéen rek laa mos a gis lu toll nii ci Kunta ba mënuma ko lim sax teew fi mboolem kër goo xamante ni bii tey meññ nga ci Cheikh bu Mouhamed Kunta rek am na tey ku la fi représenté buñ ko doon lim dina bari lool te kon mën naa am ñu juum waaye ñu ngi leen di xamal daal ni mboolem koo xamante ne askanoon na ci Cheikh bu Mouhamed Kunta mu jur sa waajur rek am na tey ku la présenté ci biir jataay bi li ci des nag mooy xanaa ñu jox leen eh, kàddu gi ngeen yëkkati ko. li sëriñ bi waxoon ci Tiwaawoon laay wax rek ni na nga wax sa bopp ñu xam la man ci kër gi laa bokk ndax Amdi Kunta doomu Cheikh Abdou Khadir Jeelaani Kunta doomu Sëriñ Alioune Kunta doomu Sidi Mokhtar doomu Khalifa doomu Cheikh Bounama non non la bokki ci keur gi ñaasan ak Ndank ben la fi sama keur maam la ken mënu dama am ñaari cieur nak yu ma fi ñëwé bokku ci keur gi bokku ci keur geneen keur gi moy crédit mutuel ñu and ak suñu directeur ak délégation bi ñu andal ñu ñëw sama keur maam bu ñu ak man ce awma baat yu ma wax day day day nuru beneen leneen moo tax ma wax waaye eh, MMI bu waxee sama mag doy na sëkk waaye bu ma ci bokkee ànd ak eh, délégation bu toll nii bokk ci kër gi ci nu nekk nag il faut ma yëkkati eh, kàddu muy gërëm ak ñaan di ñaan sëriñ bi jaare ko ci sëñ xalifa na ngeen ñaanal suñu DG bi ñaanal crédit mutuel ñaanal crédit mutuel bu baax ci am naa yaakaar nit du tàgg boppam yéen boo leen ñaanee yàlla dina ko def ndax biis yi ñu jëm bis yi ñu nekk sax te di ci jëm ci di di màggal bis booba seen maam lañuy màggal mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ni nag maanaam mooy daj dëkk dëpp gi di sa maam nga di ko màggal jël ca benn bis yaakaar naa ne bis booba loo ca yéene suñu borom dina ko def kon ñaanal leen kër gi ñaanal leen directeur général ñaanal leen njabootu crédit mutuel yëpp waaye ñaanal leen Sénégal maa ngi sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala muhammadu ashrafil seydina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bi Kunta ñu ngi leen di nuyu

ak mbooleem directeur yu bëri yu nekk ci direction général ak euh, ay chef de service ak daanaka ñëpp daal ñi nekk Thiès ñi nekk Ndakaaru ak ñi nekk euh, Tivaouane kulim juum euh, ma ànd ci ñëwoon tey pour feddale kóllëre ci biir kër gi tey suñu tànku tey fii du guléet Crédit Mutuel tàmm na ñëw di ziare si Ndiassane te Adja Emet di ñu ko di ñu ko yombalal at mu ne looloo waral suñu tànku ren yi rek ndax euh, bés bi ñuy dëgmal nii dafa doon ba bés boo xam ne képp kuy ne ashhadu doon laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan a sallallahu alayhi wasallam ca nga bokk ndax ki nga xam ne euh, moo waral lépp cofeel yàlla am ci moom moo tax ba lépp lii xew-xew euh, yàlla sàkk ko def ko mu gën ñëpp def ko mu gënal ko ñëpp donc su bésam jegee képp kuy jullit Euh, day bokk ci sa yitte ñu nga sos sa jëf ci li ñuy jéem li ñu koy jéem a jëfal moo tax bi nga xamee ne Njaasaan bokk na ci kër yi nga xam ne dañoo fonk gàmmu gi di ci at mu ne di ci def euh, célébration yi am solo ñu ne ñu nit dinañ ñëw comme këru askan bi lañ ñëw ànd ak Njaasaan ànd ak xalifa bi euh, indi suñu suñu wàll suñu participation di ñaan yàlla mu nangul na yàlla nangul ñu euh, màggal gi euh, gàmm gi ñuy def nga xam ne dañuy màggal juddu rasulullah sallallahu alayhi euh, di ci lépp luñ ci yaakaar cib yiw cib ngëneel te ñu yaakaar ko ci yàlla mu mu defal ñu ko ci bés bi yàlla nañ ko yàlla boole ñu bëgguñu nit nit suñu wërsëg li ñu am nu boole kook li li li kër gi li kër gi Euh, jagleel bés bi ñu àndandoo célébrer ko am na nag ay ay lim ci wàllu ceeb wàllu diw wàllu jumtukaay yu mel ni basang ak bool ak yu yu mel noonu ak ndox yu ñu yaakaar ne euh, amaana mu am fi njëriñ moo tax ñu ñu indi ko waaye li li ñuy li ñuy ëpp solo ci ñun mooy eh, ngeen xam ne bés bi nga xam ne seen bés la dañu bëgg ngeen gis ne ñun ak ànd dañ ko bëgg ànd ak yéen nekk seen wet euh, lépp lu bés bi laaj incha allahu rabbi ñu ñu jéem ko euh, crédit mutuel nag askan bi Sénégal ko moom un million cinq cent mille clients sociétaires ñoom ñoo boole seen doole sos kër gi donc lépp lu fi ne ñun ñi dañu doon ay ndaw rek yu ñu yebal waaye jàpp leen ne million ak cinq cent sénégalais yooyu ñoom ñoo dugal seen seen wërsëg seen ñaq ci ci bés bi ñu dëgmal li di ñaan nag di ñaanal sëñ bi yàlla bàyyi ko fi lu yàgg lool mu mu ñuy jiite ñu nekk ci gannaawam bi ànd ak moom ci liggéey bi muy euh, bëgg a liggéeyal maamam euh, bi mu bëgg a liggéeyal maamam rasulullah sallallahu alayhi wasallam maamam cheikh bu euh, ñu nit yàlla yàlla may kàttan ak ak ak ak gudd fan ak doole ba nu ànd ak moom ci liggéey bi di ñaan yàlla yàlla nangul na ko loolu daal moo doon suñu tànk euh, wax ji nag su dee am na lu ci dëng ngeen jéggal ma euh, amaanaat sama sama matadi la euh, su dee am na lu ci jëpp ngeen xam ne yàlla ci mbaaxam moo nu ko moo ko dimbalee salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mooy yar ak teggin ak taalibe te ci biir kàddu yi dégg ci yar dégg nañ ci teggin gis nañ ci itam ak bi kon ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal bu baax it euh, ci biir présentation bi rek dañuy fàtte magu eme bi nga xamante ni moo fi nekk di Cheikh Sidi Yahya ibnu sëñ Mahamad Bekkaay Kunta imam nga xamante ni bii eme mi tey buntam ginnaaw yàlla ak yonent bi ci kër googu la avant muy ñëw sax da ko woo mu ñëw teew fi mu ngi ni toog moom tamit bokk na ci ñu leen teew si fii ginnaaw loolu kàddu yaa ngi noonu xanaa ngeen déglu kaddu yi nga xamante ni bii rek moo bàyyi ko ci xalifatul am li tarixatul xaadiriya di cheikh bu ibni cheikh sidi maxtaar jaar ci doomam waaye di xaritam waaye di soppeem muy cheikhul xalifa ibnu sëñ Mohamed Abdullah ibnu Abdul Haaji Sidi Ali Kunta ibnu cheikh bu Mohamed Kunta nga xamante ni Kunta yëpp mag ñi ak ndaw ñi ak xale yi ñëpp ñoo àndandoo ni ko doy nganu loo wax ñoo ko wax loo waxul waxuñu ko njaasaan nag benn kër la benn bopp la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 الشيخ بوسيدي المختار الخليفة العام للطريقة القادرية والأب الروح لذرية الكنتي أيده الله ونصره bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci sangu-sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañoo nekk ci weer wi dundal sunna bi tax sunna judd ndax guddik démb la weer wi teru démb di benn fan muy weer wi gën a màgg ci weer yi ndax weer bu ñuy màggal muy korité di zul xijja di zul aqda di muharram di ashhurul xurum yëpp seen màggaay ci weer wii la jóge bu ñu tuddee seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wa kenn amatul beneen cër benn cër la rek muy seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wa ku seddu nag ci moom nga seddoo waaye olof yi dañuy faral di lépp dañ naan am na rabu àll boo xam ni bu gore woon fu ñuy gubal rabu àll woowee kenn du ko fa jiitu waaye ñun ahlul kunti yu fépp fu ñuy gàmmoo war nañ faa dem ak sunu contribution ndax képp kuy gàmmu seen maam rek a tax ndax woykat ba waxoon na ko ni doy na leen ci puukare ku julliwul ci yéen du am julli ci fi ñëw 1800 1800 boobu Sénégal amagul 2 millions d' habitants wala 3 millions taal fi jàngu indi fi tariqatul xaadiriya indi fi njàngale maamam Seydina Mohamed di cheikh naa cheikh bu Naama Kunta loolu di wéy ba cheikh bu Mohamed Kunta ñëw sanc jotaay bi loolu moo continuer ba cheikh bu Sidi Maxtaar mi yilif jotaay boobee kon ñooñee képp ku sol seen dàll ngir seen guddig maam dem seeti leen liñ naan diir nga waaye jam nga njaasaan nag ahlul kunti yu ndax kul maqadin maqaal wa xayrul kalaami maa waafaqal xaal ndax njaasaan da di capitalu ahlul kunti yu ndànk kajoor gii mooy ummul qura fa la lépp lu sant kunte sosoo waaye place bii nga xam ne moom lañuy defee gàmmu gi de te ahlul kunti yu nekk fii ci jotaay bi jotaayoo ko méngoo ko ku leen làmb daj leen waaye ku leen dajul itam ñu daj seen bopp waaye gëm nañ ni crédit mutuel làmb na leen te daj na leen ndax am nañ cër ci seen maam Seydina Muhammad waaye am nañ cër seen ndono Quraysh ba tax duñu wuti lenn ba di ci ñaaw ndax cheikh naa cheikh Sidil Mokhtar al Kunti yi mi yebal cheikh bu na ama Kunti am mu ñëw fii dafa am kàddu gu am solo gu mu waxoon ni yaa faailan li ma yasha wa muatiyan li ma yasha wa maanian li ma yasha abduka haza la yasha foofu nag la ñu nekk mooy lépp lu ñu am sante ko yàlla lépp lu ñu ñàkk itam sante ko sunu borom bi subhaanahu wa taala te xam ne yàlla mooy dogal ku ñu sédd séddu nañ ku ñu séddul cëru nañ waaye crédit mutuel looy def ay ati ati at ba ren nga di ko def loolu dëggu na ci moom te ils pas obligés nag ndax am na ay société wala yenn yoo xam ni dañuy maanaam ber li naan bakkaar fegu ndax mbooloo ma la ñuy xool wala rafetaay ba wala nangam wala nangam waaye yéen liñ naan xaqiqa te li war a nekk ngeen topp xam ni booy lim Njaasaan booy lim Sénégal te jiitaloo ahlul kunti boo leen mu kon lim ba dootul safe ndax su fekkee diine rek moo ñu ñor nag ndax képp ku fi nekk dina ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna sayyidina muhammad yaa ngi leen di ormal ngir seen maam kon kay xanaa ñi xamul ñoo xamul waaye daa mel ni crédit mutuel xam na kon alquran dafa ni wa aatul buyuta waaye dafa am lu mu ci teg wa taqullaha laallakum tuflihun jaar leen ci bunt ya waaye na nangeen ngeen ragal yàlla fi ngeen di jaar saa su nekk ci soxna MMI di sunu doomu bàjjan ay at depuis jamono si alaaji maam bu ba tey muy rafet ba ren alhamdulilahi rabil alamin xam Hamdi mii di suñu doom te ni mu ko waxee cëru ci kër gi séddu ci kër gi bokk ci kër gi mu ñëw rejoindre équipe crédit mutuel dañuy ñaan yàlla njaboot gi gën faa bari yàlla na ko sunu borom bi dogal eh, di jéggalu bu baax waa présidence yi di Mor Sarr ak Baro li ma wax léegi laa gëm ndax biñ fi ñëwee ci suba ba léegi ñu fi yendu ñu leen di seereel yéen waa crédit mutuel ni ñoom ñii de ay taalibe lañ ndax joxe nañ dëkk doxinu taalibe ndax kër gi dara rëyu fi waaye dara tuuti fi ndax maa kaane lillaahi daama wan tafa wa maa kaane li xayri llaahi in qataa wan fasala kër gi loo leen jaay rek na doon yàlla loo jaay lu dul yàlla ñu bakkoog yow te deseeg yàlla waaye bu leen président yónnee ñu ñëw si mission nangoo doon ay taalibe nangoo tënku ak ni jamono xatee ñu diggoon leen ni dañuy gis sëriñ bi yàlla dogal ngeen yegg si kon du ñu mën lu dul ñaan leen ñoom ñu toog ñu gisandoo sëriñ bi te lii ñu def nii ñu koy saluer ñun ahlul kunti ndax ci l'histoire c'est la première fois yebal ay missionnaire ñu ñëw xool si seeni mébét ak lu ngeen bëgg toog waxtaan en huis clos loolu c'est la première fois kon monsieur Sarr monsieur Baro sëñ baa ngi leen di sant bu baax xadis euh, nag dafa waxoon ni fu Quraysh nekk na ngeen leen jiital waaye bu leen leen mu jël mukk kon sunu kilifa yi toog di sëriñ Bunaama mi di cheikh Buna cheikh ñu gën koo xam si Bunaama Kunta ñu ngi ñu ngi koy ziar ak cheikh Siri mi looloo tax bi mu toogee fii ci suuf ak oyofam ndax Kunta li leen xamee mooy inna tawaadua min xisaalil muttaqi wa bihi taqwi ila alami yartaqi ndax tey mën naa wax ne jotaay bi yëpp ginnaaw cheikh Buna mi moom moo fi kilifa te itam mooy xalifa wajuram te wajuram moo doon imaamu Njaasaan kon kooku am na cër kon kooku bu nangoo ñëw toog ci suuf oyof la ko moo tax loolu itam du ñu ko woon seetaan ndax bëgguñu weddi suñu bopp di ziar Habib Malé nga xam ne moo yor daara ji bokk na ci ñu yor daara ji di oustaz Habib Kunta ak oustaz Cheikh bu Mouhamed mii nga xam ne mooy ñaareelu imaam ak ñi fi nekk di Kunta ndax sëriñ Bamba Kunta mii suñu wajur sëriñ Ahmed mii tudd na ko Cheikh Albekaay mii nga xam ne mooy jëwrinu wajuram di doomi sëriñ bi di jëwrinu kër gi ak Cheikh Sidi lamin mi nga xam ne mooy rakkam alaaji mii nga xam ne mooy coordonnateur bi bu leen recevoir rek mu daal di doy sëkk waaye li Ahmed wax léegi lim bu toll nii ci ay naar ñu ñëw recevoir autorité gisaguma ko loolu nag xamal lu ko waral mooy da nga tudd léegi monsieur Diop loo xamante ne si nii eh, dafa am solo lool ci këru naar loolu tax suba ba léegi ay dara ay dara yi ñu ngi fi Cheikh boo mële xay dara la sant kinne mii Haydara la sant ndax ca ba ñu déggee annonce bi ni crédit mutuel rek nee nañ ceeb kon eh, gàmmu la ñu jëm ngeen ñëw eh, wasal seen aslëf ci seen yéene ci guddik Seydina Mohamed yàlla du ko néelal mukk Njaasaan nag ak ahlul kunti lu leen waaye lebal seen maam fay la ndax seen maam rek moo mën a fay ndax bisu pénc képp ku mënti doon doo yaakaar lu dul shafaatul kubra muy shafaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam kon waaye waxuma la bisu pénc waaye yéen crédit mutuel laataa bisu pénc seenuk àdduna yàlla na leen gën gi mindeef teg loxo defal leen promotion yu kawe seen jort directeur général bi nga xam ne mooy bunt crédit mutuel ci yar gi mu wane ak teggin gi ak wane ni moom taalibe la Seydina Muhammad la ku ko bëgg la ku ko yëg la te muy bunt crédit mutuel yal na ko yàlla sàmm ndax itam bu doon kilifa gu diis wala muy kilifa gu melul ni mu war a mel kon li ko topp nit ko topp ndax am na ñoo xam ni boo leen jiitalee si fonction lu yàqu yàqu yàq ndax rëy nañ arrogant nañ xamuñu nu ñuy waxee taxat nañ تيان انت بيني رأيك يا الله دفنكو لو كنت فظا غليظ القلب بوخاتون جاومر لنفضوا من حولك وانا دفا ام سكر بوشنك بما رحم فبما رحمه من الله لنت لهم يرمنك يا تخنا يا غنا اوف نيب يا غنا امبل نيب يا اب سودور نيب يا داق مون نيب يا داق انكيس نيب كوكو نا كوكاي روي ني كون كريدي ميتيل دال سيرن باغي نيان yal na yàlla yokk clientèle am li ngeen di liggéey ci réew mi gisees na ko yal na yàlla barkeel te yàlla lafal leen cet yàlla taxaw leen ba employé yi gën a mën a bëri ndax doomi Sénégal yi mën ci intégré wu ndax réew mi soxla na emploi des jeunes te yéen a ciy bay seen waar wasalaamaaleykum wa rahmatullah lan mooy suñu soxla lan mooy suñu bëgg-bëgg lan mooy suñu yitte ci Ndiassane ak Gàmmu te sa jëmm rek tax moo tax ma ñaanoon leen ni bala ñuy dem moom ñoo ko jàkkaarloo sa jëmm ji ngir ñu a yóbbaale ci leer boobu kii Diop moom mooy DG mooy directeur moom moo ngi méngoo wàllu fi naan crédit mutuel di euh, soo xam ne fan la ñuy lebee xaalis di fa dénkaane xaalis ren sa sët yi ànd am ñu jot dina fi ñëw indi fi ndimbal lu am solo loo xam ne si dëkkute yi nañ ko soxla ay dara ay lépp loo xam ne si sa maam Seydina Mouhamed dinañ ko seetal ci ay ganam di doon sàkku nag ñoom ñaari góor yi nga ñaanal leen ñaan ku kawe seen doom leeru yent bi sallallahu alayhi wa sallam tegu seen kaw barke yent bi tegu seen kaw jubub yent bi tegu seen kaw waaye xéewalu yent bi itam tegu tegu seen kaw moom mii ak DG mii nga xamante si nii moom mooy directeur mooy mooy président bi nga xam ne mooy mooy PCA mooy président conseil d' administration nga ñaanal leen ndax li ñu téye diis na lool waaye oyof na ci yàlla yàlla dimbali leen ba ñu yeggali ko fañ ko na ma yeggali wala fu koy seen bopp itam nga a leen yàlla taxaw seen euh, kilifa di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fa mu bëgg yóbbu réew mi fu baax yàlla yóbbu fa kawe njortam te réew mi am dal nag wax naa leen ko léegi dinaa ko ci kanamam fii la woon néeg bii sëñ Bekaay moo ko fekkee ak Cheikh Sy Makhtar moom soxlawul lenn àdduna du jëmul nag lii muy wax may wax si bëgg ko ñii la mës a mel waaye yàlla dimbali nañu ñun Sénégal man heure Kounta waaye Sénégal ñu am chance nekkam ci parce que jàmm rek la bëgg. am na lu fi xewoon loo xam ne suñu fii la waroon jógee pour dem Dakar. ma ne ko ah papa euh, euh, bi kat duñ dem Dakar ndax réew mi day yëngu mën na am lu yëngal réew mi ma kat président dafa war a def déclaration boo xam ne si nii posé waatee candidat rek réew mi yëngu. mu daal ree fii la toog wallaahi fekk ñuy defal ba mu ree daal ni ma bu ko waxul nag ma ko bu waxul lépp daal mënoo kon nañ waaj tere. wallaay vingt heures mu def déclaration ni renoncé naa sama kon am nañ ci moom yaakaar am nañ ci moom yàqin kon nag seen aajo yàlla ko yàlla faj na barke ak barke kon defal leen ñaan Thank you.